Sonko ñëw na fi ne day def nemmeeku tour à Cikki dans la commune de Diass ñëw na jub sama koñ xale yi teeroo ko Adji Sarr mënuñu supporter loolu ñu wàcc garde corps yi wàcc di dàq nit ñi di duma xale yi ba ñu blessé nañ ci beaucoup de gens à ak où je vous parle cinq personnes ñu ngi ci biir nii ñuy en intensif intensifs damma ñi ne damma nañ seen loxo ñii toj nañ seen bopp yi parce que rek tur Adji Sarr la ñu wax pareetuñu loolu ñu jàpp population bi di leen dàkke di leen dàkke ba di seen biir néeg nit ñi di yuuxu di dawaloo di yuuxu ñu leen di duma di leen daq seen pick-up yi di leen dóor tojate ay kër sama grande sœur toj nañ këram bi yëpp ba ñu paree ñoo ne kër Fatou Ndione la responsable benn bokk yaakaar këram fële la ñu jubali foofu garde corps Ousmane Sonko tojate sama kër dama compteur dama euh, compteuru clim yi tojate kër gi yëpp boo fa demee à l'heure actuelle doo am foo teg sa tànk ndax ay vitre ak ay briques ñoo fa nekk kuuru kër gi yëpp foofu noonu la mel d'ailleurs j'ai commis un huissier dès demain matin il va venir constater les dégâts et je vais porter plainte contre Ousmane parce que c'est une agression qu'il a faite donc tey jii ci réewum dëgg lañ nekk mën nga sa def sa politique mais nga rafetal ko mën nga def sa politique nga rafetal ko nga fekk ay gor yu baax ci seen koñ nga leen di duma ak say garde di leen liif di leen di damate di leen di toj toj seen kër yi loolu je me dis c'est pas normal et je prendrai toutes mes responsabilités. ñoom nee nañ dinañ la yóbbu ci yoon ndax ci kii yu ñu yu ñu yu ñu jot am ñoom waa Pastef nee nañ yow xale yi li ñu def nii yow responsable yow yaa nekk seen ginnaaw. ñoom waxaku daanu staret la ñuy wax parce que ku xam faatu xam ne politique mosul violence mosuma def violence li leen naxari kay mooy que ne liñ doon xaar ci biir ci ki amuñu ko. dañ doon xaar population bi yëpp génnu téeru leen gisuñu ko seen xol bon fan ñaata dëkk lañ dem ci Mbour demuñu fi njëge ñëw ñu teelu teeroo teeroo leen Adji Sarr Sonko yow pourtant dooruñu fa xale pourquoi tey ñu ne Fatou ñoon moo fi dëkk elle travaille à la présidence de la République il faut qu'on la qu'on lui montre que ñun ñoo ko ëpp doole. dama génne sama kër comme que dama waroon jox borom Orange Money bi 2000 ma ma jox ko 2000 ma jox ko 10 000 mu ne amul wéccé ma ne ma dem ci. ak comme que naar ba saa yu ma fa yóbbee xaalis moom daf may wecci léegi nag bi may dem nag bi naar bi xaw moon sax ni gaa yaa ngi foofu sax dekkee ci laa gis seen oto léegi naar bi léegi nag benn chauffeur na wàcce dugg ci bitig bi ma koy tooñ noonu ma ne ko fii de village bi Macky Sall ak Fatou yoon waa ji nag mu ne ñëmuma sax jaar ci lu ma wax comme que damaa ñëw fii pour wax dëgg gi rek mu ne mu ne Macky Sall yooyu ma ne ko yooyu de moom moo tane ak kuy violé Adji Sarr léegi nag benn grand jóge fa la xam naa ci gros bras la bokk mu ñëw nag mu ne booy loo wax ma ne ko kee moo saaga Macky loolu moo tax ma ne ko Macky moom moo tane violeur bi waaw léegi nag ci la jël kurpañ mu dóor ma ci R4 léegi bu ma dóoree nag ci laa daanu ma jël xeer bi may jël xeer nag ale mu fekkee ma foofu nag mooy seen arme yooyu yu ñuy jël yooyu nag léegi mu jëm ma ko ci côté noppo bi ba mu bënn léegi nag ci laa daw nag ñoom ñaar ñu may topp ñu may topp ba bi may dugg suñu kër nag ale mu pàdd ma léegi ma daanu ñoom ñaar ñu may sot a ah, di dóor di dóor wala ñu gaañ ma ci R4 gaañ ma ci tànk gaañ ma ci nopp gaañ ma ci bopp gaañ ma ci épaule waaw affaire bi daal léegi nag nit ci ñett deret bi bari lool sama benn doom baa nag taal oto bi mu yóbbu ma hôpital noonu la fa demee